journée bi tay lu waral moy que direction de l'emploi ci ministère de l'emploi de la formation professionnelle de l'apprentissage et de l'insertion tay ñu initier journée de don de sang mu nekk ci deuxième journée de don de de don de sang depuis eh, Pape Modou Fall directeur de l'emploi biñ fi pourquoi ñu organiser journée bi parce que nous constatons que le mois de ramadan est mu et que nous constatons aussi que la plupart des centres de santé euh, durant le mois de ramadan ont des problèmes de sang parce que nous sommes bu ñu de duñ sang et que a aussi une am importance ñu aussi aussi nit buy liggéey ci jumtukaayam war de mën am santé bu baax parce que si amul bo warul mëno liggéey bo Nous nekul en bonne santé mëno liggéey c'est pourquoi nous avons initié parce que aussi l'emploi, c'est notre cœur de métier. Et que comme aussi tout travailleur qui travaille, comme aussi kuy nek di liggéey ci béréb war nga mëna sa euh, bonne santé nous xamné ah, vraiment que nous journée bi dañ ko pour contribuer non seulement ci ci ci mais aussi ci di aussi milieu de travail parce que aussi on parle de travail décent de tout ce qui est santé sécurité au travail et tout c'est pourquoi ñu initier journée bobo en même temps aussi d'inciter, parce que journée bi du ñun kessé euh, agent yi nek ci ministère bi yëpp ñu ngi leen di remercier de passage parce que ñew nañ joxe seen deret et tout vraiment remercier nañ leen di remercier également les partenaires euh, surtout suñu partenaires ñi nga xam ne ñoom euh, dans le cadre de la convention nationale état employé nga xam ne ñoom jël suñuy ndaw di leen insérer au niveau des entreprises loolu ñu ngi leen di jaajëfal di jaajëfal aussi la presse aussi di jaajëfal aussi le centre de transfusion sanguine qui est venu euh, mu ñëw aussi indi plus de 100 postes pour que ku aussi joxe poste de chambre nous contribuer parce que loolu dafa am importance c'est et que acte solidaire la acte de citoyenneté aussi c'est pourquoi thème bi ñu né euh, citoyenneté solidaire pour une employabilité beaucoup plus performante loolu moo waraloon journée bi tay ñu remercier ñep nak ñi fi ñi fi ñëw joxe sen deret wala ñi fi euh, participer ci journée bi di également aussi le notre directeur de l'emploi Pape Modou Fall mu nga xam agent bi ñoo initier journée bi ñu remercions vraiment ci acte solidaire bi ñu def envers les autres aussi mais également euh, ñu jàppale ñeneen ñi nga soxla ils sont dans besoin aussi